waa ñu ngi fii ci procès Barthélémy Diaz mais ni ma déggee procès bi vraiment lu mënoon ñàkk la waxu fi loo xam ni war nañ ko mën toppee lu mu mënti doon vraiment ñi ngi bëgg banaliser tribunal man ak ñu mel ni man bu ñu mësaan dugg tribunal bala ñu dugg tribunal fukki at wala ñaar fukki at mais léegi daal bis bu nekk tribunal bis bu nekk tribunal mi ngi nuru leneen daal vraiment réew taxawaayam ak tolluwaayam war na weesu fii ci ay waxu kesew kesew wax yu ñàkk fay dañu la ñu woo am na lu ëpp solo lu ñu war a bàyyi suñu xel terrorisme baa ngi fi criminalité baa ngi fi sàcc xale yaa ngi fi yeneen jëf yu gën a màgg yoo xam ni réew mi ci yooyu la war sukkandu mais ay waxu kesew kesew ay waxu ne nit ñi génn loolu c'est tout à fait normal Barthélémy nee na xam na ne teewaayam fii c'est purement politique yow en tant que partisan Barthélémy Dias lan nga mën a indi leeral ci loolu noonu. mais loolu lay wax. loolu lay nuru quoi parce que li ñu ko toppee mënoon nañu ko toppee junni junni nit li Barthélémy Dias wax am na ñu ko wax avant moom am na ñu koy wax après ñoom mais am na ñu nekk sax ci biir justice bi ñu wax lu raw loolu ñëpp dégg nañu Ibrahima dem la ñu wax ñëpp dégg nañu te loolu li mu wax que ñoom ci seen bopp y a un malaise mais ku leen di wax woon malaise boobu daf leen dimbali que pour ñu seetal deru justice. ba justice taxaw taxawaay bu mu war a taxaw kooku ñëpp ci war dugal seen loxo ñoom justice ak ñu dul justice surtout le peuple parce que la justice est rendue au nom du peuple peuple bi war na am xalaatam gis-gisam ni man kat sama justice su réew nii laa bëgg mu mel te juge yëpp noonu la ñu war a mel magistrat yëpp noonu la ñu war a mel avocat yëpp noonu la war a mel bu nga defee rek xel yëpp dal ci dëggu ci jubal ci wax dëgg ak droit loolu am démocratie démocratie boobu nag damaa gis ne Macky Sall da ko fiy bëgg a jëlee man euh, ku ma xam xamoon nga ma ci wetu Macky Sall ma yoroon mouvement bu ñu naan mouvement ànd falaat Macky sàll mouvement boobu nag euh, bi ma gisee depuis euh, weer yi ñu génn ma gis bi Karim Wade bi ko Macky Sall jàppee jóge ca ñu naan déetawaay mu jël ñi nga xam ne ay nawleen lañu woon fakkastal leen ci réew mi ñu ne déetawaay mu jàpp Khalifa Sall ba ci projet bi tey Macky Sall dama bëgg Sénégalais yëpp. xëpp seen i bët xam ne Macky Sall moomuñu dañ ko fee faloon amoon yaakaar yaakaar ne mën naa indi Sénégal goo xam ne day yokk suñu démocratie yokk koom-koom mi yokk nit ñi nga xam ne ay ndaw lañ bëgg a toll ci liggéey mu wutaleen ay liggéey mais réew moo xam ne danga ko bëgg jël bëgg koo pasar pasaree ci ay ci ay ay signa ay accords yoo xam ne ñoo ngi koy dégg te dara leeruñu si Macky Sall dama bëgg mu xam ne ñun incha allahu rabbi bëgg nañ 2019 incha allahu rabbi ñu jël. réew mi teg ko ci loxo président Idriss Seck man jóge naa ci moom ay weer ci weer ci ginnaaw pour accompagner président Idriss Seck ci Sénégal Macky Sall na xib ay bëtam xam ne ñii mu jël jox leen ay fonction ñuy pasar pasale ara réew mi boo ñëwee ci ku mel ni Tanor Dieng ñëw ci Moustapha Niass ñëw ci Aminata taal kenn ku ne ñu ubbi benn fonction boo xam ne yaa ngi am budget di gagné ay milliards nit ñi ne fi di sonn. bo parrainage bi parrainage bi parti mi bi yëpp parrainage bi moo ko jur. Macky Sall dafa yaakaar ne parrainage bi mën na koo tax may ndam mais mayu ko ko day nax boppam naxul kenn boppam day nax ndax yow réew moom Abdoulaye Wade est-ce que bu fi imposé woon parrainage keroog ba ñuy taxaw 23 juin di xeex lu mel nii moo taxoon ñuy xeex ngir maanaam moo am suñ suñu bopp mais na ko leer na Macky Sall bu bëggee taal réew mi taal réew mi muy na fi woote ay parrainage ndawi Sénégal yi bëgg nañoo liggéey mënuñoo liggéey Fouta Gueye boo fa demee tey jii nawet amu fa nit ñaa nga bëgg a bay gisuñu nawet ñoo nga sonn bekkoor bi réew mi foo dem nit ñaa ngi nekk ci hôpital yi nekk ci àll bi bëgg dem ci ay hôpital bëgg bëgg bëgg bëgg luñ suturlawul gisuñ seen bopp du du jàll wala sinon buy jàll buy jàll buntu assemblée ay bakkanay tëdd Macky Sall looloo tax bokk na ci li tax ay procès parti lemine gi yëpp bu Macky Sall pour bañ bañ bañ bañ bañ adversaire ci politique bu bëggee dam ñëpp seen i tànk na ko leer na buñ doon importer candidat andi ko ci Sénégal dañ ko def mu jóge may nu dañoo doyal jël ay mbokkam dëkk bi santu Faye santu Sall loolu dafa war a leer. waaw suñu ñëw fii lu ko waral mooy ñëw soutenir Barthélémy Dias ndax dañ jàpp ne ne mbir bu mu évoqué muy mbirum indépendance de la justice mbir mu sérieux la si réew mi moom dafa am façon bu ko réclamer juge Ibrahima Amadou dem am façon bu ko réclamer union de magistrats du Sénégal am façon bu ñu ko réclamer mais lépp mu ngi tourner autour de l' indépendance de la justice maanaam indépendance bu justice bi si boppam war a am loolu nag dafa doon question boo xam ne question bu sérieuse la bu ñu fàtte ne euh, avant ñuy fal le président Macky Sall dafa doon loo xamante ne ne ñëpp dañ ko doon évoquer seeni programme moom si boppam mu diggee woon si waxoon na ne dina si indi ay saafara ba dem signe assise nationale yi entre les deux tours mu ñëw toog daal di def lu ñuy wax commission national de réforme des institutions boo xamante ne ne si biir formulation yu mu joxee wax na si mbirum indépendance de la justice ak ay points yoo xam ne suñ ko defee mun na saafara lu bëri mais loolu yëpp amul dara loo xamante ne ne appliqué na ko si. donc tey dem nañ ba acteurs yi si boppam ñu nekk si justice si boppam ñoo koy waxal seen bopp donc loolu kenn mënul gëm loo nit ñi que ne du problème suñu réew du tamit ne da ngay intimider nit ki. doo fi waxee mooy tax problème boobu mu réer donc loolu dafa comme ni ñu koy wax rek du du c'est pas parce que da nga casser temp euh, euh, euh, luy joxe température bi moo tax température bi du yéeg donc loolu mooy le problème donc tey dañ jàpp na ne ne li ko dal tey waru ko woon dal waru woon nekk fii tey ñu koy jël en otage waru woon nekk fii tey ñu ñu dem naan da nga koy interpeller sur quoi que waa tension bi am si si langum politique bi la tension la boo xamante ne ne euh, bettuñu parce que dañu jëm si ay élections euh, te ñu di si jëm ak président buy waaj dem boo xamante ne ne dafa jàpp ne ne moom il faut mu am deuxième mandat il faut moom mu am deuxième mandat euh, nii mu ko bëgg a doxalee nag du doxalin boo xamante ne dafay jëmale Sénégal kanam parce que nit soo bëggee am mandat. da ngay dem nga convaincre population yi da ngay def bilan bu ñu teg seen bët da ngay def loo xamante ne dafa méngoo ñoom ak seen bëgg-bëgg soo ko defee jarul ngay xeex ma sàmba wala xeex ma demba waaye su dee compté woo si loolu da nga compté si tànn say adversaire xool koy dugal kaso xool koo ne du fi waxee xool koy intimider lii dama jàpp ne ne peut-être sax que gisaguñ dara loolu nag dañ koy def un appel wax ko ne ko euh, réew mi Sénégal mérité wul loolu parce que Sénégal tey xeex nañ ko mu toll ci démocratie foo xamante ne ne ëpp na di ko delloo ginnaaw ndax mandat rek parce que mandat bi moom population yi ñoo koy joxe soo liggéeyee lu war a tax ñu jox la ko dinañ la ko jox waaye comme liggéeyoo aussi lu war a tax ñu jox la ko mënuñu la ko jox donc na dem élection ci jàmm sénégalais yi voté ci jàmm mu accepte résultat yi ci jàmm bañ bëgg a profité si processus électoral wala si justice wala si force sécurité yi pour ne dafay euh, gàllankoor ñoo xamante ne adversaire politique am waa dañu dañu dañu loolu wax nañ ko wax nañ ne euh, d'abord xalifa euh, Sall bi mu tëj ba mu tey dossier bi ñëpp waxoon ne fii la jëm ñu gis fu mu jëm Barthélemy Diaz tamit c'est la même chose parce que Barthélemy Diaz moom it dafa taxaw pour xeex képp ku wax nañ ko waxaat ko képp ku taxaw pour xeex si nii wala si ne dinañ xool fu ñuy fu ñu lay jaar loolu koy leer na donc tey moom loolu soo déggee tey procureur bi lu mu lu mu wax rek di nga xam ne ne amuñu argument buñ ko jàppee soo déggee avocat Barthélémy Dias yi nga xamante ne ne vraiment kii waru fi woon sax euh, waruñu ko woon sax jàpp di ko xañ njabootam di ko xañ euh, ay militant am donc dañ jàpp ne ne dafa exprimer loo xamante ne dafa jëm si indépendance de la justice ma ma tënkaat ko encore loolu du problème boo xamante ne ne dañ ko war a yemale si nit lu mu wax problème la boo xamante ne ne dafa xóot loolu te ñu war ko saytu bu baax.